l'inculpation d'Ousmane Sonko euh, nga naan nañu ko libéré euh, vous n'êtes plus la femme qu'on a connue en 2012 vous vous faites dans le politiquement correct. non pas du tout. je si. fais je fais dans la justice. dans dans le correct. parce que lii may def mooy li gën a compliqué nekk opposition gën a compliqué nekk pouvoir bi. waaw mais c'est du politiquement correct. Euh, man xalaatuma ne boo nekkoon ministre de la justice. doon nga doon may Ousmane Sonko temps bi mu am yépp bi ma nekkee ministre de la justice la ma doon lijjanti surtout wax nga ko sànq c'était la traque des biens mal acquis mais ci laa des ba léegi ba am na ci ñoo xam ne ba léegi d'ailleurs dix ans après euh, c'est leur contentieux avec moi c'est, voilà pour des raisons politiques mais xam nañ ne c'était pas c'était pas maa doon defal sama bopp. mais ils ont raison aussi de ouais. ne pas euh, oublier la traque des biens mal acquis c'était une période noire pour la démocratie c'était une période humainement douloureuse pour de nombreuses familles plus de cinquante membres du Parti démocratique sénégalais et, et sympathisants et hommes et hommes hommes d'affaires euh, se retrouvent en en, en prison euh, une traque ñu foogoon ne ça allait être une reddition euh, des comptes mi discours politique yow li éliminé Khalifa Sall ak Karim Wade mais Macky Sall tamit ci sa magistère au ministère de la justice la ko la ko la ko del fàttaliku les dates ah. parce que les dates d'abord Khalifa Sall bi ñu koy condamné envoyé spécial non waxuma condamnation bi la la la ko sooke waaw mais naka toog dañuy leen di fekk na yow génn nga. Euh, ci ci ci gouvernement bi. waaw mais loolu c'est bien de le dire sax. voilà waaw mais mais la ko sooke. mais xam nga la constitué dossier yi. waaw la ko euh, sooke la ko sooke. Euh, yaa ngi woon ci biir. la ko buñ buñ buñ buñ delluwaatoon ginnaaw. tegaat ma ministre de la justice na ma ko defee woon noonu laa koy defee. donc bu bu ah, donc bu amuloo rek kon amuloo loo wax. Antoine ak Ismaïla. non non déglul rek li ma lay wax. bu ñu waxtaanee rek dinañ jubóo affaire xaalisu réew mi la ñuy wax. waxuñ politique de xaalis yu réew mi la ñuy wax gis nga suñu dëkk yi tant que xaalis bi amuñu ci gestion boo xam ne mooy bu baax bi du nu avancer te kooku wax nga ko sànq demande sociale la woon xëy na bañ demee nag ba koy continuer am na lu ca politique dugg saa c'est clair te kooku it aussi euh, lu ñu war a rectifier la buñ cay dellu. waaye révision des comptes ci am regret. moi je pense que am naa ci regret kay te wax naa ko wax naa ko du benn yoon. Ah, am nga ci regret li ñu ci laxas politique. mais je pense que waroon nañu dem jusqu'au bout parce que après dañ ko arrêté xam nga après dañ ko arrêté et je pense que kooku aussi coûté na euh, ci popularité au régime bi parce que nit ñi li ñu doon xaar mooy ñu am benn différence ak la amoon bu njëkk ba vraiment ñu nekk ci ci ci ci ci reddition des comptes maanaam xaalis bi kuñ ko dénk nga def li leen li ñu la ci sant c'est loolu nag moom dafa nekk ci këru suma programme xam nga wax ma ma tudd nga ma comme candidat kooku ci suma këru programme lay doon doo am am ci benn regret loolu bokkul ak xam nga tudd nga Ismaïla <laughs> Madior moom suma suma su conseil la woon d'ailleurs su ma consultant la woon bi may nekk ministre de la justice moom ci beneen fànn lay la doon defee troisième mandat euh, ak yu ni mel bon bokkul loolu bokkul saa it xam nga booy booy booy discuter foog nit ñi xam bu baax xaalisu réew bi ba fi ñu jonn yàlla tey tey la ñu war a gën a taxaw vraiment lutte contre la corruption tey la gën a am pertinence ci réew mi tey ak soxla yi ni ñu toll euh, àddina ni mu jafee euh, prix yi ni ñu yokkee vie bi ni mu seeree courant ni mu seeree mais xaalis réew mi ci loolu la war a def mais mais xam nga Macky Sall bi mu ñëwee euh, daanaka sax am na moment boo xam ne Macky Sall était était un peu hésitant nit ñi ñoo ko ci pousse nekku ko demande sociale la et c'était une demande sociale à l'époque hmm, d'accord alors une soirée vers vingt heures procureur Alioune Ndao def conférence de presse annoncer une liste de vingt cinq personnes les gens commençaient à douter un peu mais ñu ne on va voir ce que ça va donner liste de vingt cinq personnes boobu euh, à bu Tahibou Ndiaye euh, ou deux ou trois ñu coppati ci Karim Wade mettre ko dans le rouleau compresseur de la justice dem génne une juridiction obsolète boo xam ne ñu ngi ko tegoon fële et puis mu dem ba leer ci boppu sénégalais yi ne la traque ki mu doon visé c'était Karim Wade ak décimer les caciques du PDS yeneen caciques du PDS yi ñu jël leen bloqué leen à Dakar euh, def leen sous contrôle judiciaire mënuñu bouger mënuñu laal seen alal ñu ci bari ci ñoom dem transhumé yow waa PDS war nañ laa jël comme avocat yow waa PDS war nañ laa jël comme avocat dem commencé transhumé ci ci ci Macky ñu Karim Wade ñu condamné ko euh, un procès boo xam ne tamit tegu leen ay preuve yu bari la ngeen waxoon yëpp seen commission rogatoire yi ñibbi si ngeen e, indiwul leen lu bari à la fin de la fin de naa cinquante six milliards yéen a ngi doon wax deux milliards milliards euh, ngeen ci ngeen ci recouvrer avocat yi di leen ah, laaj xam nga ñaata milliards non dama lay dama lay tegal non dama dama te loolu tamit humainement et au plan euh, de la justice et de la démocratie tanewul li am. fii actuellement non non non non non Maïmouna kooku d'accord mu kooku kooku kenn d'accord ci d'abord ci 200 milliards yi ñu dellu si waat ci 200 milliards la yoo xam ne yi gouvernement sénégalais daf ko confirmé par une déclaration du gouvernement. kooku boo tapé internet di nga ko ci gis voilà mais man du ma du ma du ma du ma polémiquer ak ak ak ak Alioune Ndao j'ai beaucoup de respect pour lui et de sympathie moom li mu wax la xam man li mu wax laa xam ak li gouvernement bi wax gouvernement bi effectivement confirmé na ne deux cent milliards yooyu recouvré nañ ko on s'en tient à ça c'est le gouvernement kooku am na maintenant bonne gouvernance euh, du ma dellu si waat ci procès ba li ñuy wax ça fait il dix ans mais tey la gën a valable bu ñu ma tegaatoon ministre de la de la justice ci jamono jooju la ma ca war a def doon naa ko ca def te doon naa dem plus loin. daf ko ci nang nang ko ci dafay woon. mais y avait un agenda politique bu sous-tendroon cette traque là. man li ma la ci mën a wax comme ministre de la justice euh, liggéey bi procureur yee ko doon def ak juge yi parce que aw ma benn euh, y avait rien de personnel xaw ma leen sax ñu doon poursuivre xam nga yàlla dafa man maa ngi woon ci sama liggéey bitim réew xaw ma leen woon aw ma benn xar ma yàlla ak ñoom euh, donc ça n'avait rien de personnel voilà mais c'était parce que nag quand même président Abdoulaye Wade bi ñu ko fiy jëlee 2012 y avait des corruption bi yow fii nga fii nga nekkoon ah les valises Ségoura ak les ak yaa ngi fi woon ah n'est-ce une réalité donc eh, c'était un besoin aussi de bonne gouvernance xëy na sax eh, li nga xam ne régime président Macky Sall waroon na ko cee def xëy na defu ci lu doy et c'est peut-être ça qui a amené que yi naan bon kumba am ndey la ak kumba amul ndey peut-être après la ci politique dugg boobu man nekkatuma ministre de la justice donc man ci suma naka la ñu mën a fexee ba ñu aar alalu réew mi képp koo xam ne kii aussi nag jëflante nga ak alalu réew mi ci anam boo xam ne bi yoon waxu ko jël nga ko def ko sa poste dañ lay war a mën a topp aussi comme dans tous les parce que xaalis bi dañ ko soxla pour xeex ndool pour wàññi njëg yi ci marché yi pour créer emploi pour les jeunes dafa am solo euh, IGE par exemple dafa naa ne cas boobu sax di nga ma ko man <laughs> président bi mu ne dafa teg am na cas yoo xam ne daf ci deg teg coom-coom loolu aussi dafa bokk xëy na ci li ngay wax nit ñi mujj a ne xëy na boo am na ñoo xam ne génn bàyyi nañ seen dossier am na ñoo xam ne président daf ci teg cooncoom loolu pour nga éviter mu am pour ñu éviter mu am da ngay génne IGE présidence IGE doon institution indépendante boo xam ne day rendre compte rek assemblée nationale foofu ay ndaw réew mi fa nekk inspecteur euh, d'état yi nga xam ne ñu xarañ lañu ñu leen di affecté ci ministère yi balaa ministre bi di dépenser mu joxe ñu joxe seen seen seen accord. seen pitus xool ndax yow lii nga bëgg a dépenser voteel nañ la ko assemblée euh, ak ni nga ko bëgg a dépenser ndax jaar na yoon ñu jox la sa quitus nga dépenser ba ñu ne la indil indil justificatif ñu vérifier mais noonu la. lu ci nekkul noonu ñu ne laa ah, demal nga. mais mais li ngay wax ni pourquoi pourquoi pourquoi vous avez eu l'opportunité de mettre tout ça en en en œuvre et puis man dama damay xaar un jour aussi. Euh, pour inviter les Sénégalais à aller de de de l'avant mhm. nga mm -hmm. reconnaître quand même euh, que cette traque a été mal conduite même bu fekkee ne yow amoon nga de bonnes intentions parce que l'histoire vous rattrape euh, on demande à l'État du Sénégal de rembourser à Bibo Bourgi euh, li ñu ko li ñu ko amal Karim de demande un nouveau procès euh, l'État bañul euh, carrément ma ne lañ ca waroon def def nañ ko ci man ba ma taxawee comme ministre de la justice la ma ca waroon a def def naa ko te def naa ne procureur Aliou Ndao aussi reconnaître na ne musuma leen a jox ay instructions ba ci ministre de l'intérieur bi doon adjoint musuma dugg ci seen liggéey parce que kooku du sama du sama awma gisewu ma noonu sax liggéeyu euh, magistrat dañ leen bàyyi ak seen xel ñu topp yoon maintenant après c'est incontestable que politique da cee laxasu loolu nag ci suma programme dama ne politique bi war na cee génn ba mu set